3S Pro. jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen siyaar mbokk yi ñu amaan mbégte tey teew fii Fass yaakaar naa ne tey moom fii ngeen ñu gis ba tey génnuñu biir faas fi ko daan jële waaye tey nag dañoo déplacé wu ñëw ci bente ñee fas yéene cee waxtaan ak le grand coach muy Socé coach écurie Fass si combat Reug Reug ak Sa Thiès bi nga xamante bi nii taxaw na waaye laataa loolu nag dañ koy baal ak di ko baalu ak si koor bi nga xamante bi nii dugg nañ ci ñu ñaan suñu borom yàlla nañu ci nangul suñu ay ñaan jégal ñu ci suñu ay bàkkaar du nuyu nag kenn koo xamante bi ni yaakaar naa ne dafa abonné ci surtout seen làmb muy Malick Balde Malick Ba ndaanaan bi borom cité damel ñu ngi koy siyaar bu baax a baax le grand marabout Malick ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di ko jox wàcc waayam maa ngi lay ziar moo nanta di ziar mbokk internet yëpp di mbo di di leen bëggee ñoom sax di leen di leen jox seen wàccuwaay di leen baalu àq tamit si weeru koor bi di leen baalu àq di ñaan yàlla def ñu def yàlla ñal defal kooru jàmm waaw yàlla def ci xéewal def sutura defal ñu teraanga daraje Seexul Xadim nan nga dundee koor gi coach waaw koor gi moom comme d'habitude koor tàmm nañ ko di def dañ tàmm tàmm nañ di woor tàmm nañ di tàmm nañ quoi koor bu ñëwee dañ koy sant yàlla rek waaw sant nañ allah am na solo bala maa ñëw ci combat Reug Reug Sa Thiès en tant que di tàggat ay xale entraînement yi ak koor gi nan lay demee. waaw parce que plan da ngay def di entraîné 16h 18h nga mun def quoi parce dañu am ñoo a sori da ngay programmer 16 def ay maintien ngay bu intense ay maintien ngay def rek ay maintien dañ saa nga nga commencement da ngay daw yaram bi boo demee ay une semaine nga commencé contact ndank-ndank yooyu la quoi mais. cof la rek bu doon entraînement boo xam ne day en parce que weeru koor mënoo a pare di def yenn effort yi quoi dañuy maintien rek. ngeen di maintenir forme daal. waaw dañuy maintenir forme bi ak bañ tamit ba ñu mën nga bañ a mën nga contact si seen yaram contact bi. kon dañoo am ay combat yoo xam ne après ba pare seen yenn combat moo gën a jege bu ma juumul Lac Rose ama neex Baara Ndiaye ak Cobra wala am ngeen yeneen. am na ay xale am na ay xale sax am na xale sax war a bëre ay xale xam nga Lac Rose Bara Ndiaye mooy ay grand combat te boobu boo xool la 15 la xam day jël day jël bi trop waaw moom xam nga boobu il day laaj maintien quoi te boobu am na xam ne boo leen ko boo ko bàyyee mbër ba sagom kese mën na dem entraînement ne xëy du ko arrangé te lamb ji dafa jege moo tax dañu teg plan boo xam ne dañuy isolé wu di isolé wu sax di nëbbatu di entraîné macha allah am na solo combat boo xamante bi mën a yow waxtaan nan dan ci nga ne ma combat boo boo xamante bi ni ñor na lan la si promoteur yi di xaar yaakaar naa ne promoteur yi dégg nañ sa kàddu ba suñu papa Gaston Mbengue jox na ko amateur yëpp suukaru koor mu taxawal ko démb rëg-rëg Sa Thiès bi mu taxawee lan nga ci yëg non di yëg lu ma yëg daal mooy kontaan la dama xam ne dama kontaan parce que dama xam ne amateur ak mënu lamb amati bu ñëpp doon xaar mooy combat Reug Reug Sa Thiès bés boo xam ne Sénégal yëpp a koy xaar mënu lamb sa laay wax combat la boo combat la quoi ñoom ku ne da war bëree pour dem sa yoon te ñoom ñaar fu ñu daje noonu moo di taqali waaw daan dem la waaw combat bu doy waar la daal combat bu neex la et puis ñu ngi si ñaan yàlla daal combat bi ñu dugg si alhamdulilah ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim gën si alhamdulilah rabbil ndax combat la boo xam ne ñu ngi ñaan yàlla mu am waaw mel yeneen waaw yu fi jot a am quoi ñaan yàlla combat la boo xam ne daal dina yóbbu làmb fu sore sore ndax làmb da allah mu nekk loo xamante bi ni am na solo man li ma lay laaj mooy ci seen dernier sortie yi Sa Thiès Moussa Ndoye Reug Reug Gouye Gui yan état de nga gis ci ñoom. waaw ñoom ñaar boo xoolee ñoom ñaar ñoo xaw a yem sax wala ñoo xaw a nduroo sa laay wax bind. waaw loolu laay mun a wax ko parce que ñoom boo doon xool ñoom ay athlètes lañ ku si sinoo ko si ñoom ñaar da ngay kontaan muy saakees wax ay entraînement xam ne ñii ils sont pare toujours ils sont pare ñun toujours pare dañuy pare Reug Reug day pare chaque jour saakees boo ko xoolee chaque jour day pare amaana kay combat nga naan combat jëlantam maayen la ñaari mbër la yoo xamante ne moom jëndantam maay moo fa nar a am. yaakaar yooyu dina ci am quoi. waaw combat bi ma la combat jëndantam maay la amul kenn ku kenn pour sa morom doole looloo xool fu mu bind seen taxawaay yoo xam ne ñi ñoo tolloo ñoo ay làmb na ñu ngi soog a teg combat bu normal combat bu normal sax ñaari mbër yu tolloo tolloo dayoo tolloo taay tolloo yëpp Leewtoo bi yëpp ngi doog a tëgg combat de l'année. combat bi combat baa bi moom combat bu bu ñu rek yow affiche bi foo ko présenté rek da ngay xam ne ay mbër nga présenté looloo si garaaw looloo si doy waar waaye lamb ju mooy lu ma wax yàlla nañ si yàlla yóbbu al bisimilah rahmaan rahim rek waaw combat bi ñaar que le maire gis nga ci favori. non combat boobu ku lay mooy lu ma la wax mooy lu ma la comme dañu boole ñaari naataangoo yoo xam ne ñoo tolloo si lépp xam nga booy joxe favori a ngay joxe favori si ñaar mbër morom ñoom ñaar ku ne mën daan sa morom ku daan logique na ku daan amul kenn ku wax dara ñoom ñaar ku nekk mën na daan sa morom waaw xëy na nag bëre yi mën nañ jiwoo te wul ku ne mën daan sa morom. techniquement ci biir bëre kan moo sàcc weccetu bëre. waaw xam nga kay mbaparkat la moom lañ gën a gis quoi mbaparkat mais kay nag dafa am bëre bu doy waar bu ne si moom saa kees mooy rapidité dafa gaaw lépp lu muy def ci gaawaay la koy def ok mais est ce que Reug Reug mos mu ngi ci foofu laay waxee xam nga combat bu doy waar te daa mel am na loo bëgg a junj de. garaawa ngi mbaa bu doy waar ma non ñaari bërikat Sa Thiès mën na sànni ñoom ñaar ñëpp ñuy sànni pour sànni nii rek mais sànniwuñu pour dara sànni mais ñoom ñaar ay bërikat lañ boo xoolee Reug Reug la Reug Reug day xeex maanaam mais day xeex sax mais xeex bi am mun a ñàkk la parce que bu da ngay laab bëri dóor la da ngay doon di bëre di bëre di dóor noonu la dem mënut a mais boo xoolee man bëri laa gën a séntu sax ko xeex su combat boobu ñaar mën nañ sànni nag sànni mun a ñàkk mais daw jàppante laa gën a gis mais ki bëgg daan est-ce que du du war xeex xeex bu sax. waaw mais foofu ku bëgg a daan tam bu dee côté ku bëgg daan la ñoom ñaar ku nekk daa am lu la arrangé am na koo xam ne bëggul ko jàpp ngeen moom muy regret non regret jàpp ngeen moom moom mun na jàpp sa ngeen yow doo jàpp boo ko jëkkee si jàppam mooy moom foofu loolooy problème fa laay waxee quoi moo tax ma ne mu ngi bëri mbër bu gaaw boo xam ne lépp si gaawee la koy bëri saa kees léppam salaamaaleykum la maaleykum salaam waaw mais yow nag est-ce que yow liggéey nga lu mën a baara loolu yaa ngi bëri kay luur xëy na ñu ngay bëri lay luur mais amuñu gaawaay ba saa kese am yooyu yëpp mu ngi ci combat la boo xam ne déglu ma la ku ne mun na maanaam waaw cinquante la quoi mun ma si bëgg ma si développé lu bëri mais xam naa ne combat la ñu ngi soog ko teg combat bu doy waar la combat bu doy boo xoolee temps yi wax wax ji bëri na si coow li bëri na si coow li ñi na la tax taxawul li tax taxawul te mu ngi ne yàlla dogal na ko tey mu taxaw ñu mooy woon ne lamb ji ñëpp soxla loolu te lamb ji ñëpp solo nag day doon lamb xam ne day neex si luñ si yegg maanaam si luñ si lamb neex quoi ñoom ñaari mbëri lu gars yi séntu si ñoom bay wax si ñoom genre wax yu mel noonu nañ fexe ba buñ buñ ñoom ñoo ko war a sàmm bërëg ngor ak fula ak fayda ñëw te ku def lu xam ku yàlla may ndam ñoo xam ne yàlla yoo la may na am négocier négocier mënu cee am eh ñaari mbër yooyu ñaari mbër yooyu négocier mënu see am mënul nekk xam nga loo xam nga làmb négocier day fekk làmb yoo xam ne ñaari mbër yi calculante mais ñaari mbër yi kenn kenn du calculer sa morom saakees calculewul Reug Reug Reug Reug calculewul saakees moo tax combat amul calcul combat woowu combat bu nar a gaaw la sax boo xoolee toujours ma gis-gis. tey bu nu wuree woon ci bëree wure sans sans sans xeex ñëw rek jàpp ngeen bu wure. moom laa la wax saakees lépp mu si gaaw waaj bu ko xañee gaawee boobu amaana mën na ko gàllankoor. erreur Sa Thiès nag ci kanamu waaw erreur bu def waa ji da ko espace dem moom léppam bëri la bëre lu ñuy wax lecture de bëre lecture de bëre sax lecture de de bëre ba léegi lecture de combat lecture de la ko bëre leneen la lecture de bëre mbëri am lecture de bëre ñoo ko doon doy waar si seen am waaj am na loolu ko am na lecture de bëri quoi ndax dafa yàgg mbapat àll bëri simple mbapat sama kam yàgg na mbapat mais nag bëri dóor ak mbapat dañoo waroo benn kurpeñ rek mën a yàq sa làmb mu nga nekk naanoonu bëri dóor la benn kurpeñ sa xamam mu da bëri rek bu dee la moo tax bëri dóor doy waar quoi waaw. macha allah am na solo lan ngay wax promoteur bi. promoteur bi di ko ñaan rek yàlla may ko gudd fan ak wér dafa ko xéewal dafa ko sutura ñu koy ñaan tam mu tëggaat yeneen combat eh, am na yeneen espoir ne si ginnaaw xam ne tam war na leen mën a tëggaat comme combat bu neex bi mu décroché nii am na yeneen combat yu neex ay Forza yooyu yëpp ay Forza ay DJ booy yi war a bëree Forza bombardier comme combat neex. ii allah akbar. Forza bombardier combat gën koo neex sa a coow. mooy dóoral ba dóor ba kenn daal. moom la mooy combat ba am na combat da ñaari mbër yoo xam lañ Forza bombardier day neex. lu amateur yi soxla salaam dañ koy gis ay dóoral boor bëre xeex fii nàcc yooyu affaire yooyu dañ koy gis te gars yi metti man bëgguma lool non non non mais lamb la bëri dóor la bëri dóor du guerre bëri la rek bu jeexee jeex na gis nga moom bëriwul dóor day guerre day rayante non non non mais rayante moo bombardier genre bu bombarde la tudd bombarde tur boobu lañ la ñëw si lamb Serigne Dial tudd mais bombarde maanaam façon bëre moo tax tuddee ko bombarde du bombardier bombarde la woon bombarde da doon bombarde bëri naag Youssouf Faye sama kanam Ibrahima Diop Youssouf Faye sama kanam da ko bombarde kon xam naa ko mook forsa combat bu neex la père père kay mi ngi lay seetaan. père dégg na ma père kate père père Gaston. bombardier Forza combat bu rëy la. grand contre petit la bombardier Forza combat la la dagg deux Tapha Tine bombardier Forza mooy làmb ji. macha allah lan ngay tàggoo kër. waaye tàggoo di ñaan di ñaanal gars yi rek yaay yàlla def yàlla yàlla defal kooru jàmm. waaw di ñaanal monde lamb yëpp yàlla defal leen xew di baalu ñëpp àq nag waa monde lamb ñu ma xam ñu ma xamul ñu baalu ñëpp àq entraîneur yeeg ménagère yeeg.

man ku ma bëgg a gis ñëwal Sen Lamb TV wala nga jokkoo ak Mor Anta dégg ma am incha allah sponsor na sama gannaaw jamono yi yu ñuy wax bool promotion waaw bool jaayul société la boo xam ne ñooy wàllu gardenage la ñore ak wàllu tabax directeur général bi mu ngi tudd Momar Talla Ndour waaw te ma nekk sama ginnaaw jamono yi di ma sponsorisé man di ma jàppale quoi man ak samay waaw bëgg naa loolu laa bëgg wax sax dama bëgg benn jour nga ñëw dem foofu si bureau bi dafa émission nga jàpp ci parce que mooy may jàppale. yow daal yow yaay xool heure boo bëggee yow foo ma woo ma wuy si la foofu ñu ñëw. ñu may jàppale jàppal boo xam ne tey jii xam nga waaw doy na daal waaw waa ji mu jàpp si sa man di jàpp si samay booy Talla Talla Ndour moom moom mooy bool borom bool promotion bool promotion société baa ngi fii Fass si booru canal 4 bi direction bureau bi quoi waaw Talla moomal Talla Ndour. jàpp ñu ñëw foofu. bool promotion man su fekkee am na boo xoolee sama benn interview ma def sa logo laa soog. mais comme ko yow sama waay nga mu bëggoon nag nga waaw gën si jàpp baax a baax incha allah. incha allahu rabbi kon yaakaar naa ne Momar Talla Ndour kii suñu waay la suñu xarit la képp koo xamante ne daf koy jàppale rek mën naa ne man lay jàppale mën na ne monde làmb lay jàppale kon Bawol Production incha allah dinañ fa ñëw. def ak le grand coach benn émission boo xamante bi nii ñu wone bagage yëpp ñëpp seetaan ko parce que yaakaar naa ne saa bu ñu ko soxlaa interview day yomb ci ñun te kenn ku nekk ni mu la jàppee rek noonu nga koy jàppee jaajëf ma Talla Ndour foofu nga jàppale suñu waa ji foofu la ba benn yoon incha allah seen làmb Kalidou jërëjëf.